Ah, kan ku bayar kan kan. Kan. Kan. Kan ku di sant yàlla bu baax ci bés bi di wax alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin daaw defoon nañ ko ñaan fekkee ko ren yàlla may ñu ko kon dañu sant yàlla ñu ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi teew rek ñu ngi leen di sant di jiital ci nuyoo bi suñu représentant fii ci Dakar di Cheikh Ba bi la ñu nga xamante fi la daal di faral di fii ci Dakar di leen nuyoo di ko teg ci loxo bi yàlla la ñu ko di téye ko. nuyu suñu xalifa Cheikh Mahi Ibrahima ak Cheikh Imam Cheikh Cissé ak suñu porte-parole Cheikh Mahi Cissé ñu ngi leen di nuyu di leen

man ma nekk présidente bi jiite jigéen ñi macha allah ñuy bay suñu waar ci biir ansaaru diin suñu kéem kàttan ansaaru diin nag comme ni ko Baye waxee woon ñu ngi ciy jéem ndaxte yaakaar naa daaw amoon nañ programme yàlla def ñu fekkee waat ko ren programme yooyu avancé kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax ñu ngi gërëm nag képp ku fi teew képp koo xamante ne ci équipe bi nga bokk nekk ci Ansaarud-Din muy section féminine nuyu nañ la ziar la gërëm la sant la ak ñi nga xamante ne ñoom ñi ciy jàppale physiquement moralement ak financièrement dañ naan boo limee da ngay juum waaye nag suñ sang yi toog fii nga xamante ne dañ leen a dara jaalee bés bi mënuñ leen a ñàkk a tudd ñu ciy jiital suñu Zeyda Cheikh Ndeye Zeyda Ndeye Aïda ak rakam Cheikh Cheikha Mariama bu Amérique ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ndax mënoon nañoo yeble waaye defuñ ko dañoo déplacé wu ñëw kon loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen sàkku di sàkku ci ñoom ñaan ñu ñaanal ñu bu baax a baax ndax dañuy doog a tàmbali rek ñu ngi sant nag suñu parrain yi tamit ak suñu marraine yi ci ci Abdou Sané Gaaj mi nga xamante ne moo nekk mu mu baay fii ak Souleymane Ndiaye bu saf ko di nuyu tamit Zeyda Mariam suñu sang la waaye suñu parrain la suñu marraine la ak euh, Yande siribe madame Ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak képp koo xamante ne rek kilifa nga nekk fii ci biir salle bi ñu ngi lay dalal di la wax bisimilah. Zeyda Ndeye Khady bi nga xamante ne mooy suñu conférencière ñu ngi koy dalal di ko wax bisimilah Ndeye Khady macha allah xam naa nit ñi dañ laa namoon moo tax ñu topp di la woo boobu ba léegi. ndax conférence bi nga fi defoon daaw macha allah dafa muccoon ayib ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku lim juum. di wax ne Ansaarud-Din comme niñ ko waxee woon rek jigéen ñi nañ ci gën a takku nañ ci gën a góor góorgóorlu nañ ci gën a far farlu ni ko bàyyi waxee woon di jigéen ñi nañuy rëj rëjloo ak góor ñi ci pays yàlla yi ñun de ñi ngi jéem ku ñu jàppale ñu dem ñu ngi tàllal suñuy loxo tamit suñu góoru Ansaarud-Din yi ñu gën ñoo jàppale ñi ngi ñuy jàppale mais nañ ñu gën a jàppale bu ko defee ndaxte dañ ne doolee jën ndox jigéen mënul dara waaye jigéen mën na dara ndaxte jigéen moom mooy société kon nañ fexe ba suñu góoru Ansar Dine yi nañ ñu jàppale jàppale boo xamante ne fuñ geesooti suñu rek suñu gannaaw ñu gis leen ñu ngi nag nuyu di ziar ñëpp di wàccee ñëpp seen wàccuwaay di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jégalu nag ci kàddu yi ndax sang ñu tox moom kenn ko wax incha ñu ñii ñoo koy def macha allah jërëjëf.